accueil. Bon, je m'appelle euh, Sedjou Soumaré, président de la coordination des étudiants Tchessois. Aujourd'hui, euh, notre activité de fin d'année, un dîner de gala marquant la, la fin peut-être euh, notre mandat, mais coïncident aussi avec les vingt ans d'existence de la coordination des étudiants Tchessois. Et il était important de centraliser pour la première fois depuis 20 ans, euh, pour la première fois de décentraliser cette activité à parce Parce on parle de 100% local, comme nous sommes des étudiants thiessois, il est bien parfois décentraliser les activités à Thiès, raison pour laquelle euh, aujourd'hui on a de euh, gala à Thiès. Mm -hmm. ok waaw su loon daje bi tey tey ñun dañuy dee ay nekk à l'université Anta Diop ñu ne comme c'est une coordination des étudiants thiessois. On s'est dit pourquoi pas cette année-ci, pour la première fois, décentraliser la, euh, les activités de la coordination ici même à Thiès. Raison pour laquelle cette activité, ñu defee ko fii ici Thiès, tey si suba amoon na benn consultation gratuite bu ñu def fële si poste de santé Silma euh, ak don de mille moustiquaires ñu ngi woon en partenariat avec Marisop International pour une consultation gratuite. cancer du sein et col de l'utérus donc loolu moo waral loolu moo tax tey tey si guddi gi nii gis ngeen comme ni nga ko gisee am na benn dîner gala bu ñuy def rôle bi nekk le rôle de l'étudiant dans le développement local donc mu nekk thème boo xam ne ñëpp war nañu ciy gis seen bopp parce que nous sommes des étudiants nous sommes d'abord euh, nous sommes d'abord acteurs principal vraiment du développement local donc pas aujourd'hui parler du développement local sans pourtant parler des étudiants ñu ñëw à Thiès ànd ak si étudiants yëpp parce que après deux ans de mandat ñu ne nañu organiser di sa dîner de gala vraiment bi nga xam ne moom mooy dajale autorités yi ak les étudiants ñuy waxtaan si thème boobu noonu. effectivement d' abord dañuy d' abord dañuy remercier toutes les autorités qui ont eu à aider la coordination des étudiants thiessois parce que depuis deux ans mu nekk si à la tête de cette coordination autorités yi ñu doon jàppale bu baax a baax je parle des autorités bon euh, du ñu mun a bañ a citer si autorités yooyu ñenn parce que ku mel ni Siré Dia il nous a beaucoup marqué en tout cas je le je l'ai dit euh, keroog ma ne Siré Dia bokk na si ñu gën a ñu ñu gën ku ñu gën a marqué dans cette coordination des étudiants thiessois parce qu'il a beaucoup fait parce que xam ngeen ne souvent dañuy wax ne les gens politisent la coordination o oh non ces autorités politiques doivent impérativement aider cette coordination mais cette coordination mais Siré Dia bokk très sincèrement ñu gën a constant de par parce que caravane fu mu jotee mu joxe les de des étudiants mu joxe parce que il est la première personne qui nous a octroyé 2 millions de francs CFA donc tey dañ koy sant di ko gërëm par rapport ak euh, constance am si action parce que heure bu ñu heure bu ñu ko fëggee rek mu réagir donc loolu yombul si autorités yi certes que ñeen ñi doon nañ def mais moom tamit def na bu baax a baax donc moo tax vraiment ñu ñu jël journée tey bi def ko parrain Euh, Mamadou Thiaw aussi tamit parrain la si parce que il est du département et c'est un c'est un Thiessois comme euh, comme tout Thiessois sans faire de discrimination entre le département et la commune vraiment il a eu quelque chose parce que keroog am nañu amoon ñu problème fay saal bi moom ci boppam ñu daj bañ ko gisee vraiment il a fait quelque chose mu jox ñu une somme de 2 millions donc loolu vraiment c'est quelque chose à magnifier parce que il est important que ces gens de manifestation ñu ñuy ñu ñuy ñu ñuy laaj lan la autorité def ñu koy wax directement que population bi di ko xam mais surtout aussi tamit étudiants yi di ko xam parce que c'est ça qu'on appelle une gestion euh, transparente n'est-ce pas boo dañuy euh, dañuy wax ne l'étudiant thiessois est vulnérable à l'université euh, l'étudiant thiessois est fatigué à l'université ça il faut que je le parce que nous sommes 14 000 étudiants thiessois soo gisee pourquoi ñu topp étudiant ñu topp autorité pour ñu dimbali parce que benn autorité dong mënul jàppale étudiants yi parce que non seulement nous sommes nombreux mais dafay laaj parfois autorité di gëstu bu baax baax suñu étudiants yi parce que imagine ñu nekk 14 000 étudiants yi Thiès ñun lu ñu mën ñu koy def parce que on donne beaucoup de chambres aux étudiants Thiès on les loge on les parfois euh, ku ci am feebar ku ci feebar ñu jël euh, ñu faj la fay fay say mais loolu ñun ay étudiants dong lañ mënuñu lépp mais parce que soo gisee damay ñaawlu benn affaire parce que cette année-ci jusqu'à présent on n'a pas reçu la subvention des étudiants thiessois mu nekk affaire boo xam ne ñu ngi koy ñaawlu certes le maire a payé le maire daal ci la a payé le logement des étudiants thiessois suñu appartement bi ñu yoroon amoon nañu fa boru 1 million 345 mille moom jël na mu fay ko or que cette année-ci il devait nous octroyer une somme de 10 million 10 yoo xam ne ñun université yëpp ñun ñoo koy bokkoo Moi qui vous parle, je suis le président de la Fédération des étudiants tchessois regroupant l'ensemble des universités. Mais cette année-ci, jusqu'à présent, on n'a pas reçu cette subvention. Donc, lolu nek na ci lo xamné da fay sonal étudiants yi bu baaxa baax université parce que on n'a pas on n'a pas que les logements à honorer. Amna logement yi, amna yeneen étudiants dañuy fébar yenn say dans le domaine social. yenn saa yi ñu soxla ay ticket nga war nañ xam ne c'est lié aux nañ ko mën a di saafara mais vraiment Euh, à ce niveau là autorité dañuy sonn te loolu dafa bokk ci lenn loo xam ñun dañu sonal en tant que dirigeant souvent bon étudiants yi di critiquer ça tout ça c'est normal parce que nous manquons de moyens voilà euh, d'abord je lance un appel à tous les étudiants thiessois que ñu ñëw ñu gën a jàpp la coordination des étudiants thiessois parce que ce sont des gens parce que ce sont des étudiants volontaires ñoo xam ne tey lu kenn bëggul ils se sont pour jël li nga xam ne moom mooy cette coordination dimbali seen rax wala dimbali seen naataango seen naataango yi nga xam ne ñoo nekk foofu à l'université donc ça c'est important c'est une mission mission boo xam ne tey loolu dañ ko war a rafetlu donc di lance un appel à tous les étudiants ñu gën a jox cër la coordination des étudiants thiessois mais ñu gën a dugal loxo seen loxo aussi tamit si doxalinu coordination des étudiants thiessois vraiment loolu tamit bokk na si li nga xam ne moom laa doon moom tous les nouveaux-bacheliers ñi nga xamante ne ren am nañu am nañu bac ñi nga xam ne tamit bon les élèves malheureux tamit ñi nga xam ne amuñu bac ma leen di leen wax ne àdduna moo demee noonu voilà. Quand je me maa ngi avant ma wu maa ngi nuyu téléspectateurs yi Thiessois yi nga xam ne ñoo ngi seetaan ñëpp ak di ñu déglu ak waa Sénégal yëpp euh, man maa ñëwaat tey en tant que représenté DG Pape Siré ci manifestation des étudiants Thiessois yi. yi nga xam ne lañ koy organiser fii si résidence tey je la présidente des amazones de Pape Siré Dia yi nga xam ne ñu nekk ay jeunes nekk ay jeunes bootu Thiès waa bootu ci ginnaaw la DG de la poste di ko liggéeyal gis liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy def biir Thiès ñu approuvé ko nangu ko ba tax tey jii ni ñun ñëpp ñu bàyyi lépp loo xam ne tey jii amoon nañ ko di ànd ak moom étudiants euh, yi ni DG ànd ñoom la ñu ànd ñoom te ni DG ànd ñoom la ñu bëgg la la moo dal seen xel moom moo tax ci histoire Thiès waaye tey jii ni li ñu organisé c'est la première fois soo gisee ñu am boo tey fitu def ko ak am possibilité def ko se parce que dañu am ku mel ni le DG de la Poste Pape Siré ci seen ginnaaw mu di leen doole di leen jàppale comme il a toujours l'habitude de le faire ni mu koy defee saa su ne di jàppale bépp Thiessois sur les plans et les domaines noonu la jàppale les étudiants Thiessois yi nga xam ne tey jii nii dara parce que ku xam-xam ni vétu bi étudiantine dafa metti j'en suis la preuve vivante man j'ai été j'ai été à CET j'ai la reine de Djibi président bi nga xam ne moo fi nekk kon samay confrères laa fi fekk yoo xam ne xam naa li ñuy dund xam naa lañ doon dund ak li ñuy dund tey fi leen DG jëlee ak fi mu leen indi tey donc lu rafet la loo xam ne tey jii dañ koy approuver en tant que des jeunes yi nga xam ne ñu nekkoon nañu UCAD ñu war tey Thiès te DG moo ñu permettre à ce que jeune bu boo demee UCAD tey jii ni am fitu dellu soit biir Thiès avec que Pape Siré moo ñu permettre suñu vie étudiantine daan di améliorer neex ba nga xam ne tey jii nii étudiants yi dañuy ñëw ñoom ñëpp yu weekend Thiès di delluwaat Dakar possibilité boobu yëpp tey boo gisee aisance boobu étudiant Thiès waay am ko c'est parce que dañ am ku mel ni le DG Pape Siré Dia donc tey jii nii suñ ko defee parrain yoon la loo xam ni lu ñu rafetlu la loo xam ne la tey jii nii dañoo delloo naar bi xoromam comme ni ñu koy waxee donc tey jii nii dañ koy rafetlu sant yàlla ne ñëwaat suñu biir mbokk étudiant bien fait du DG Pape Siré Dia waaw li ñuy wax étudiants yi rek mooy bu ñu jàppoon benn nañ jàpp fukk parce que comme ni ko DG di waxee rek étudiants yi ñoom ñooy avenir bu réew bi te li boo di gisee plan émergent bi nga xam le président de la république am na ko étudiants yi ñoom ñooy crème porteuse bi nga xam ni projet boobu donc kon tey jii nii war nañu am aisance bu leen mën a permettre ñu yëgale seen étude avec la TEP boo xam ne reposer te DG moo leen permettre ñu def loolu donc kon ñu ngi ñaan étudiants yi bu ñu jàppale woon DG benn dañ ko jàppale bu ko di lancer un appel nag à tous les responsables politique yi nga xam ne ñoo nekk biir Thiès à tous les dirigeants que ce soit le conseil départemental que ce la commune que ce la mairie ñëpp ñu ngi leen demander à ce que ñu suivre l' exemple de Pape Siré parce que étudiants yi jógee fii di dem université lu metti lañ fay dund loo xam ne tey jii nii dañuy bàyyi yaay bàyyi papa nekk dëkk université boo xam ne amuñu fa yaay amuñu fa papa lekk war leen fa lépp war leen fa donc DG jàppale bi mu leen di jàppale ñoom la waroon ñoom ñi nga xam ñooy autorité nekk si biir dëkk bi bi de leur montrer la voie wan na leen yoon bi donc ñu ngi demander responsable politique yëpp di demander dirigeant yi nga xam ne ñoo nekk biir Thiès yëpp ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les responsables administratifs et les responsables politiques ñoo ngi leen di ñaan ñu suivre l'exemple de Pape Sira Dia ñu dimbali étudiants yi parce que étudiants yi ñoom ñooy avenir u réew voilà merci